donc li fi xew lii sànq depuis deux heures du matin vraiment lu doy waar la ñi ngi massawu ñi nga xam ne moom la tiis bi dal yëpp waaye di sant yàlla it ci ñi nga xam ne amul kenn koo xam ne ñàkk na fi bakkanam nii koo xam ne it gaañu na fi gaa ay gaañu gaañu mais daal euh, yàqu-yàqu bi bëri na te li ko indi yëpp mooy safara lakk la lan moo indi lakk bi saa on ne diir am na ay spécialistes yoo xam ne jombul ñoom bu ñu defee seen liggéey jombul dinañ mën a wax li indi lakk bi mais daal yàqu-yàqu bi li yàqu bëri na trop trop trop ci alal ñi ngi wu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqulu mais alhamdulilah rabbil alamin donc fay nañu safara si yëpp fay nañu jafe-jafe yi ñuy am mooy comme yéen daan am rek ci marché yi en général donc marché Sénégal yi moom ak visite de prévention yi ñuy def prescription en matière de sécurité yi ñuy wax ak yëpp yi gouvernement beeg askan wi yëpp jël mais du tee toujours rek marché yi dugg ci rek accéder pour mun a dugg day am problème parce que dañuy def empiètement sur la voie publique mu am li ñuy wax ay étals sauvages mu am ay pousse pousse ba nga xam ne doo mën a dugg mais démerdé wu nañu quand ba dugg beneen problème bi nga xam ne moom la ñu am mooy problème mu bâtiment yi nga xam ne safara si dafa daw dem ci batiment yooyu mooy ñaari centres commerciaux yi donc dafa dem ba ay deuxième étage yëpp nga xam ne dafa tàkk foofu aussi pour yegg ci kaw maanaam sur le plan architectural architectes yi nga xam ne normes yi ñu war a tabaxee souvent daal du demee ni nga xam ne noonu la war a demee ba nga xam ne pour yéeg yegg ba foofa nekkoon na difficulté mais aussi ni ñu barricadé magasin yi ñu entreposé li nga xam ne moom lay wax les aliments au feu mu bëri woon trop ci kaw donc safara si metti woon lool tàngaay bi taroon trop ak saxaar si bëri woon lool gisoon ngeen seen bopp waaye alhamdulilah rabbil alamin comme kenn ñàkku ci bakkanam mais ñi ngi massaw bu baax a baax ñi nga xam ne ñàkk nañ seen matériel yi te lu mel noonu bañ fi amati bouche d'incendie malheureusement muy poto muy bouche d'incendie am na ci marché bi mais kenn alimenté wu ko en eau donc mën na ni amul parce que uti ñu ko utiliser ndax amul ndox donc dañ doon obligé bu ñu fayee daal di déparaat dem ay centaine de mètres root ñëwaat te boo xoolee engins yi fi nekkoon tey yu Touba ñoo fi njëkk ñaar yu Diourbel ñëw na benn muy ñett bu Bambey ñëw na muy ñeent ak bu Gossas même ñëw na mais chaque fois bu ndox mi jeexee dañuy obligé daal di delluwaat encore rootiwaat balaa ñuy ñëw fekk leneen takkat encore